jërë ngeen jëf mbokki internet yi génnee gu ñu génnee turam ci liste électorale yi nag moom Ousmane Sonko mbir la moo xamante ni daana deka deesatu ko weddi Ousmane Sonko moom di chef bu parti Pastef nga xam ne nag ministre de l'intérieur des ko disudu nekk na koo xam ne nag effectivement dañ ko dindi ci li nga xam ne moo di liste électorale yi doole nag li ko confirmer rek mooy ab lettre boo xamante ni sous-préfet bu les Almadies d'aller dina koy 3 août 2023 euh, et par un acte d'huissier bi nga xamné établi établi le 19 septembre euh, par nak ki nga xamanteni modi maître Adama Dia di huissier de justice euh, correspondance la nak bo xamné signe signé signé le sous-préfet Papa serignan Niang boobee ñu ko intitulé notification de retrait sur des listes électorales muy am nak ay information ñi leen di bëgg Euh, muy wax rek ne euh, ci lettre boobee euh, administration mu ngi xibaar kii la di monsieur Ousmane sonk judd ci fukki fan ak juróom-ñaar juróom-ñaareelu weer ci atum 1974 foofu ci Thiès ne nag daal nañu koy génnee ci li nga xam ne moo di liste électorale yi gannaaw ba nga xam ne nag daal nañ koy condamné par contumace te ka def lu ni mel di chambre criminelle bu tribunal de grande instance hors classe bu Ndakaaru ci ñaari ati yoo xam ne des ko tëdd

Euh, sur instruction nak bu ki nga xam modi chef de protocole euh, bu kële di Ousmane Sonko gannaaw mu demee foofu ci këram ngir jébbal fa lu ni mel ci hôpital principal nak euh, ba nga xamanteni fa la kële di Ousmane Sonko nek mm, lieutenant de la garde pénitentiaire bu mu fa fekk nak daf ko daldi gantal né mom mi lé mënu ko bàyyi benn yoon mu yegg ci ki nga xam modi Ousmane Sonko la ko waral nag mooy que mom moom UC bi lé amut li nga xamanteni moy autorisation bu greffe bu prison bu sibi xotaan ba mu dellusee wootee fa la nga xam ne moo di ca kër ga ca siti kër góor gi eh, chef de protocole bi mu fa fekk nag daf ko wax gannaaw ba mu waxtaanee ak ki nga xam ne moo ti maître Bamba Cissé di avocat kenn ci avocat Ousmane Sonko def ko wax rek eh, demandé ko mu dem eh, déposer acte bi le lendemain eh, ni ki treize heures zéro minute moom nag gannaaw boo xam ne daal mënta servir li nga xam ne mooy l'acte dafa daal di dem nag fële nga xam ne moo di ci sous préfecture bu Dakar Plateau daal di ko fay déposer nag comme ni nga xam ne noonu la ko yoon waxee jërë ngeen jëf mbokk yi kon loole mu nekkoon xibaar yi jëm ci wàllug usman Sonko ko retirem ci liste électorale yi des xaarandi fan la warante di mujjee kii gëtam Euh, di leen wax ne rek képp koo xam ne gan ga ci page bi te abonné ko mën ngay abonné activer sa cloche su ko defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ci ñu koy njëkk jot euh, cant ak ngërëm ñeel na leen di leen jox dig daje beneen yoon yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ceel àndee laata la di wéy di like di abonné ci seen seen Nakra TV jërë ngeen jëf cant ak ngërëm ñeel na leen.